asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ni yéen ni topp ci seen émission bi nga xam ne mooy daara ji ñu dikkaata ak yéen ci daara ji muy daara joo xam ni dañ fiy jàngale ngir ki mën a fer iji ba mën a di jàngal boppam. kon nag euh, xam ngeen ni ko baaxoo rek waxtu daara ji saa yu jotee bu njàngale jotee rek sëriñ bi day ñëw toog ci daara ji ak ndongo yi muy jàngal ñu tàmbale jàng ki leen koy defal nag. mooy seen mbokk Serigne Khadim Ndiaye Kayar ginnaaw ma leen nuyoo yéen yi nga xam yéen laa jàkkaarlool di leen tatagal bu baax di leen sant ci teewaay bi nga xam yéen a ngi koy teew ci daara ji lépp rek ngir fexe xam ndax yent bi neewoon na li dala e, ñaan naa yàlla du jël bind mukk ba ko may faatu kon bind mu ngi tàmbalee ci berse bi mooy fi nit ki juddoo ba ko muy e, e, faatu xam ngeen nag ni nga koy jàngalee xam ngeen ko bala ñuy ñëw ci bindu tey bi dañ leen di jàlle ci bindu bi jàlloon maanaam su ko defee ñu mën koo xam waaye ngir ñu dikk ci nag dañuy ñëw ci xaraf yi nga xam ni moom ngeen jàngoon muy ñeent yi waaye nag <clears throat> am na ci xaraf woo xam ni bii ngeen bàyyi ci xel dafa am benn leer buñ ci war a leer la ndax dafa am benn xaraf wu nekk nii ñu koy wax do njàngim ne mi weesu woon ngeen bàyyi ci xel da nga ko xawoon a jiwaaleeg xaraf yi xaraf yi moom mooy daa doo gis nga doo dun waaye bii nag daadun la deneen ci ñëwaat pour mu gën a leer ni nga ko toppoon ci daadun léegi da nga koy topp ci daadun ab leeral bu muy ñëwaat ci kanam ndax ñaari xaraf dañoo xaw a nuroo léegi boo ñëwee fii muy xaraf man a la jàngaloon muy jiimun wala nga ni jiim ndax ndax xeetu njàngin la rek mooy bi nga waxoon fi alifun su la neexee nga ni alif fii baawun ba nga ni baa fii taaun bu la neex taa fii saaun bu la neex nga ni saa bi jiimun bu la neex nga ni jiim bi xaaun bu la neex nga ni xaa bi xaaun bu la neex nga ni xaa bi daalun gis nga bu la neex nga ni daal moom yaa xam ni nga koy waxal ndax waxin bi moom du ci dara mu ngi ci nga xam xàmmee xarafi rek ba bu ñëwee ba ci masque yi nga xam ne xaraf yi jàngawoon naa ko xamoon naa ko suñ ko nii lay doon kon jiimun xaawun xaawun daalun gis nga bii daalun la ni nga ko jàng woon daa daadun bu ko jàngee ci daadun ndax bii mooy doodun dinañ ci ñëw ci kanam ci waaye ci kanam lay doon ci yeneen xaraf kon kii daalun lay doon daalun mooy moom bu la neexee nga ne daal daalun daal yaa xam ni mu koy jànge kon ma baamul la ko pour nga mën koo xàmmee bu la neexee alifun wala nga ni alif baa taa saa gis nga loolu daanaka sax moo gën a neex moo gën a gaaw alif baa taa saa jiim xaa xaa daal gis nga alif ba ta sa jim xaa xaa daal wala nga ni alifun baaun taaun saaun jimun xaaun xaaun daalun waaye nag noo ko jàngee rek ci ñeent façon njàng moomu dana baax waaye comme jàngaloon naa la te jimun ak xaaun ak xaawun ak daalun dafa mel ni dama bala ñuy ñëw jël bind tey faaw ma laaj leen bind bi ngeen jàngoon maa xam mokkal ngeen ko wala leen ko subaay ñu door a jël bind kon yéen kon nag léegi yéen dong yi damay teg xaraf yi ngeen wax ma tegaat ngeen wax ba ñeenti xaraf yi mat su bu dee noonu la ñu jël bind bu dul noonu nag subaa moom tey du ngeen jël bind kon ñu jàll ay bisimilah wax leen ma dégg bii xaraf lu mu doon jiimun bii xaaun bii xaaun bii daalun waaw laa waxoon mooy bii waaye njuumte dañoo kon daalun la comme ni ngeen ko jàng léegi nag am na nu ma ko jàng woon léegi su fekkee ne mën ngeen ko waxee noonu ba tey baax na ndax dama ne jiimun ma ne jiim xaa xaa daal muy. jiimun arab la nga ne jiim jiim jiim waaw. xaa waaw. xaa waaw waaw xam nga boobu moo gën a neex. maanaam waaye loolu du si dara mu nga mu nga aju ci ni nga koy jàngalee rek moom li ci am solo mooy nga xàmmee xaraf rek kon dafa mel bindu tey bi mokkal ngeen ko ndax li ciy firnde mooy xaraf yi ma jàngale woon def ko daadum ba ma ñëwee neen daalum la rek fa saaf da koo mokkal kon mooy wane ni kon bind bi mokkal ngeen ko léegi nag ni ñuy def mooy ñu far nag li nekk ci tablo bi yëpp su ko defee ñu tàmbaliwaat bindaat ba ngeen xam ni njàngale ndax boo xoolee li ma war a bindal xajul fii dafa xat te xaraf boo koy bind dafa war a leer ba ki koy jàng xam ko moo tax moo tax faaw ñu far tableau bi léegi xool leen gis nga dañ koy bind lépp lépp su ko defee nag moo war leen a bindal date bi nga xam ni mooy weer wi bindalaat leen li nga xam ni mooy nim tàmbale woon ci xaraf yi ndax li ngay bindit fekkee du leer ki koy jàng du ko mën a xam ni mu ko war a xamee dëgg-dëgg dafa war a leer leer boo xam ni ki koy jàng da ko war a xam ndax xaraf yi bu ba mu ëpp du neex a war a xaw a foren tuuti su ko defee ki koy jàng man koo xàmmee ba fu mu ko gis xam ne xaraf bi kat jàngoon naa ko mooy xaraf sàngam nangam lay tekki su ko defee mu mën koo xam bu ko fekkee feneen mu ànd ak yeneen xaraf da ko war a xam ci xamin wu leer woo xam ni mooy tax mu mën koo ràññee mel tey nga gis tey mu sol mbubb mu weex nga xam ko su ëllëgee bu solee mbubb mu ñuul it di nga waaw ndax jëmm ji ngay xam waaye du col gi loolu nag mooy comme xeetu njàngale ndax njàngale ki lay jàngal mu ngi aju ci yow li ngay dund rek mu lay leeral la noonu ba nga mën koo xam léegi bu ñëwee ci ni nuy binde table bi nii léegi li la baaxoon nga mën koo xam dëgg-dëgg mooy date bi date bi la naan jëkk bind tey la lan ba nga xam tey la nangam fan ci weer wi tey la bis sàngam nangam fan ci weer wi su noppee nag ñu ñëw nag ci xaraf yi ni nga xam noonu ko baaxoo waaye xam nga tablo dañuy wax ni boo ko effacé nii rek xam nga ne day tooy parce que loolu faw ngeen xam ko ndax da ngeen na ñaan yàlla dem ba ay jamono fii ma taxaw di jàngale ngeen ñëw taxaw yor daara ji di jàngale kon na ngay sëriñ bi ni muy def nga def Malik ba nga xamante ni mu ngi ni soo demee bul dem rek jël xam-xam ba jàng na nga jël teggin ya teggin ya ki lay jàngal nga xool ni muy waxee ngay waxee noonu nga xool ni ngay tooge noonu nga xool ni muy jëflante ni nga jëflante boo jëlee eh, ya rek ba yar ba teggin ya nekk ci yow xam-xam ba dina la yomb mooy nag ni ñuy def ci lay jàngal toujours dañuy wax sax jàngale saa bi ñëwee bala muy jàngale war naa xool ndax am ci su bu dina feeñ ci kanam gi su ndékkiwul xiif dina feeñ ci kanam gi su ko maamu yoree maamu feebar mu bàyyi ko mu feebar bu ñëwee dina feeñ ci kanam bi kooku nag mën naa am bu ñëwee taxaw ni mu daan mokkal du mokkal noonu ndax xel mi day wàññi ko moo tax kon noonu jàngalekat bi seetloo ndongo yi rek noonu la ndongo yi di war a seetloo jàngalekat bi kon nag léegi ñu ñëw ci ni nga xam ni mooy bind bi gis nga léegi gis nga ni ñu koy tàmbalee baat bi moom defe naa mii ngeen bii nekk aw ab dat dat boo xam ne dañ ko leeral maanaam nga def nii def nii def nii def nii gis nga yooyu da ngay xool bindkat bi ni muy bindee defaat nii def nii def nii léegi nag lii boo ko xoolee mooy dibeer mooy ahad mooy dimanche ñetti fan ci weeru jumaada saaniya muy euh, rakkaati gàmm rakki gàmm rakkaati gàmm rakkaat jumaadal uulaa moo jàll kon duggaan nañ ci benn weer jumaada saaniya léegi dal tachine mooy tat bi ma la amul amul amul moom du gaaw a soppi at ba at lay soppiku moom lii moom at ba at lay soppiku mooy 1434 moom at ba at lay soppiku maanaam mu muharamu dé déwén wii di ñëw mooy tamxarit gii ñëw ci la bi war a sopp quoi waaye fekk moom muha tamxarit dugg ko rek nii rek lay doon defe naa bu ñu xoolee nag date bi nga xam ne moo nekk ci weeru tubaab bi def naa yéen yéen di ngeen ko xam ndax yéen a man mooy lan la 14 kon defe naa 1 4 def nii nga def mais def nii ah avril waaw kon bo kon 4 ñaari 4 lay doon nga def nii ma dinaa dikkaat ndax mu xaw fendi def nii léegi mu ngi am kon lii mooy date bi rek ndax day bis bi ngay jàng da nga ko war a xam léegi nag bu ñu ñëwee ci liñ ko a bind ñu def nii gis nga kii moom wax dëgg yàlla jëlatuma ci yàgg ak yow ndax jàng ko jàng ko jàngaat ko mu yàgg lool ci yow gis nga gis nga. mooy bisimilah rahmaani rahim bi nga xam ne bisimilah rahmaani rahim bi nga xam ne baaxoo nga ko kook jëru ci yàgg ndax dalay xaw a téye rek moom wax gi moo ci am solo saa yoo tàmbale wax ak bisimilah rahmaani rahim ndax jullit noonu lay def léegi nag ñu ñëw ci xaraf bi nga jëkkoon a jàng muy gis nga alifun ci toppaat bind bi jàlloon jiim gis xaa gis xaa nga daal mooy jiimun xaawun xaawun daal léegi nag ñëw ci bindub tey gis nga boo xoolee gis nga bii ak bii ñoo nuroo ñëwaat gis nga bii ñëwaat ak bii ñoo nuroo léegi nag bii moom lu beru la gis nga kon boo xoolee bii ak bii benn la kon daal bi nga jàngoon bii moom nga jàngaati bii léegi gis nga xaraf bii ak bii ñoo nuyoo boo nee bii raa bii raa ngay wax waaye nag ñu ñëw nag ci leen leen di wutale xam nga bii amul woon tomb léegi nag bii daa am tomb amul tomb waaye bii dafa am tomb gis nga kon boo xoolee bii ak bii tomb bee ko wutale bi nga jàngoon muy daal gi ak bii tomb bi rek moo ko wutale bii nag yaa ngi koy door jàng waaye yaa ngi koy door bind nii ci xeetu bind mi waaye jàngoon ko moo nekkoon nii gis nga ñetti bëñ yaa ngi nii ñetti bëñ yaa ngi nii nee naa liy mujj ci xaraf moom jërul xool ndax bu jàllul fi la yem fa la yem rek waaye a ñetti bëñ yi rek moo ci jar xool gis nga bii daal nga waxoon hmm? bii dangay ngay ñëw ni saa gis nga nag bii soo koy wax faaw nga bàyyi ci xel saa yoo koy wax dafay war a mel ni dangay waxaale bii te doo te saa ngay wax moom it xaw xaw naa jafe tuuti maanaam boo koy wax daanaka dañuy wax ni sa euh, sa tuñ maanaam sa gémmiñ muy sa sa làmmañ su ñëwee ba ci bëñ yi du ko jàll da cee war a yam xam nga boo xoolee euh, bii ba mu la koy jàngal tuñ mi dafa jàlloon bëñ yi ba ngay gis làmmañ wi maanaam làmmañ wi dafa jàlloon bëñ da ngay gis làmmañ wi bii eh, bii bii nag bu ñëwee maanaam du jàll bëñ yi comme nga ne daa gis nga day mel da ngay wax daa fekk na saa ngay wax comme muy indi alladi gis nga alladi na daa boobu mooy bii fi na daa lay doon waaye da ngay mel ni kuy waxaale daa daa gis nga daa toujours làmmañ bu ñëwee ba ci bëñ yi rek ci lay yem waru ko romb dem daa day mel ni lay mel ni làmm maanaam bëñ ñi da koy kepp nga xam da nga naa doo jàll daa gis nga bokkul ak gis nga ha booy ñëw làmmiñ bi day génn waaye bii nag moom làmmiñ wi du jàll daa daa day mel ni da ngay xaw a waxaale da fekk na daa ngay wax daa raa zeyin gis nga bii nag yi moom neex na neex naa wax zeyin siin siin bii nag moo ci gën yomb ci yépp gis nga baa fiin nga waxoon fii mooy fiin bii nga ni laa raa zëyin fiin zaa raa zëyin fiin bala ñuy jàll nag dafa am lu ma la bëgg a leeral tuuti fi na yi ma lay jàngal yépp mën nga koo dégg beneen beneen njàng bokkul ak bii ndax ne maanaam li ñuy wax njàngum daara njàngum araab ak comme ni ma la waxoon saalum saalum kajoor kajoor bawol bawol ni ñuy waxee daf dul bokk seen la seen kàddu dul bokk seen seen seen làmmañ tey fi ne biñ nga bii mën ngaa dem feneen nga ne saa ñun laa ma ne maa ngi ko jàng de dell ju tooy dell ju tooy xam nga kii dell la dañ ko wax dell fii dafa tooy mooy tom bee tax ñu ne dell ju tooy kon bii nga ni maa ngi ko jàngoon xaaw wala xaa ngan ma mane de bii ñu ngi jàng ko xaa lonk waaye du si dara dañuy xool bu dee wolof moom day xool yëf yi ni mu mel rek mu waxe ko noonu fii nga ni maa ngi ko jàngee raa zeyin am ko le ne maa ngi ko jàngee razin kon raa la ba noppi am tom bi ñu ko tuddee razin gis nga yooyu it du ci dara moom comme wuutee njàngi mi moom bu mu la jaaxal yow li ngay xam mooy xaraf bi moom foo ko fekk gis nga wuute gi ci ñàkk gee maas lay doon waaye su nga xesee ba maas rek ba maas kii ñëw nga jàng ko du am wuute ñaka jàngoon ndel bi tooyat ñaka jàngoon ak lii ak naka jàngoon ak laa ñoo ci bokk yam moom masque bi moom kenn bu ko tëb na nga ko war a jàngale mais li am solo mooy nin la ko jàngale nga jàpp ko noonu rek soo déggee ko waxee na ne bul jàpp ne dafa yàq moom noonu la ñu ko jàngale fekk na baax na kon laa raa zëyin siin daa raa zëyin siin daa raa zeyin siin gis nga xaraf yu neex wax la nag za ra zeyin siin za ra zeyin siin bii nag ñu tax ñu koy jànge njàngin woowu waxoon naa la ko sànq dafa am noo xam ne boo koy boo ko jàngiwul noonu boo ñëwee ba ci fi nga koy maasee di ko doo ko mën a jànge ni ñu ko bëggee comme mooy mooy ñëw ci baatu alladi wala alladina comme nga ni alhamdulilahi rabbi alamin wala alladina alladina bi nekk ci fatiha rek ndax damay bañ a tari fatiha muy gudd ci yow euh, maanaam alladina alladina mooy daa gi mooy alladina ca lay gën a neexee waaye boo ne allasina kon dangay ngay jàng siin bii te loolu la ñuy bañ boo nee si rek wala sa sa rek soo ko wexee yaa ngi jàng bii moo tax yi ci xaw a nuru xaraf yu nuroo te bokkunu danoo xaw a kii moo tax gis nga bii soo ko jàngiwul zëyin ba mu xam bu la commencé le nga xam ko dëgg-dëgg soo ñëwee saa bi nga koy jànge ndax yëpp yëpp saa yii bu ci mën a doon njàng ni bopp na ba mu des bii boo moytu nag yii di nga ko jàng mu ñëw fekk si bii ndax bii boo nee sa bii nga wax waxatoo bii bii boo waxatoo bii bii nga wax bi boo nee sax waxatoo bii bii nga wax dañoo xaw a nuroo gis nga bo bii nga ni fa gis nga bii nga ne ra gis nga bii nga ni zë gis nga xam nga ni wutee moo tax ñu ne gis nga dañuy bëgg nga tàmbu zë zë bi nga ni zë yin bii nga ne da gis nga da da ngay mel ni koy waxaale da fekk sa ngay wax bii nga wax sa ngelaw génn mu wuuteeg bii moo tax dañoo xaw a nuroo kon kii nga ni raa raa zeyin siin naa loolu yomb na za raa zeyin siin tey nag faw ngeen delluwaat ginnaaw ndax jàngeen lu ma ñetti bind te xaraf yi boo ko xoolee benn benn bind bu ci nekk ñeenti xaraf la kon booy xool tey yéen a ngi tollu ci fukki xaraf ak ñaar fukki xaraf ak ñaar jàng ngeen ko kon te kon day laaj nag bala ñuy tàggoo di ngeen tàmbalee ci kaw baamu ko bëgg si waat fii ndax yéen a ngi bëgg bari xaraf fii ne nii li leen def ci xaraf yi tuuti rek ngeen xaajal ndax fukki xaraf ak juróom-ñett la te yéen a ngi ci kon daanaka bu ngeen ci dolliwaatoon ñaar rek léegi ngeen xaajal xaraf yi kon subaa ngeen fukki xaraf ak ñeent léegi su jàngaatee li ngeen jàngoon day fekk xaraf yi jeex ndax ndax fukki ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett la muy 28 léegi nag kon comme jàng ngeen ci fukki yeeg ñaar muy douze kon day laaj tey ngeen baamu ci kaw ba ñëwaat fii te du te du ñàkkit ma delluwaat ginnaaw fii fii laaj leen ci mbaxam xaraf yi nu ngeen ko jànge woon bu ngeen bu leen neexee ngeen waxe ko waxe mu jëkk ko bu leen neexee ngeen waxe ko comme nii ma koy waxee léegi nu leen ci soo baax na waaye daal li ma ci mën a xam mooy xaraf fu ci ne dinaa laaj fan la nekk fii ban man koo xam léegi kon ñu ñëwaat ci xaraf bi kon daa ra zayin siin siin waaw baa raa zayin siin saa raa zayin siin aywa aywa waaw zayin waaw siin xam nga xeetu njàng mi moo gën a neex neew mën a wala raawun wala zaayun day metti kon njàng bii day gën a neex ba nopp te mooy gën a yomb nga ni. za waaw. ra léegi nag ndax euh, euh, dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti léegi xaraf wii xarafu daa bii ndax am na ci dadaleef ci baa bi ba ci mim bi bu ci amee dangeen naa am na ci ma dégg ko bu ci amul ngeen ni amu ci ma dégg ko ndax xaraf wii am na fii. am na fi wala amu fi. amu ci ah. amul wax ci kaw ñu dégg. amul kon amu ci. léegi xarafu raa bii ndax am na fi am na ah, kay am na. Ah. léegi ñaata la fi. ñaar ñaar ndax bii la. déedéet bii. bii. bii. bii. kon nag xarafu raa bi ñëw na fi ñaari yoon fii. xarafu zëyin bii ndax am na fi amu fi léegi li ma la bëgg a laaj mooy raa bii boo ko bëggoon def sëy yi nooy def da ngay tomb ci kaw léegi muy nii léegi zeyin bi boo ko bëggoon def raa nooy def nga def ko nii gis nga lii mooy tax nga yeewu léegi kon léegi bii nay mujj nekk léegi bii nekk léegi waaye léegi nag kon dellowaat ñu dellowaat ko buum ca boy boy ba léegi kon bii lu mu doon bii lu mu doon ah déedéet ah gisu de ah waaw léegi nag nga bëgg koo def zeyin dangay def nan tomb bii gis nga nag léegi nag bii lan la woon daal waaw daal daalul waaw léegi bii soo ko bëggoon def daalul ñooy def da ngay dindi tomb bi nii ah. léegi daalul bi boo ko bëggoon a def za za lu muy doon kay kon léegi nga def tomb bi muy daa nga dindi ko muy daal nga def tom bii muy daa nga dindi ko muy daal gis nga kon xaraf yi loolu rek mooy di wutale léegi boo xoolee bii lan la jiimun jiimun ah. bi lan la léegi boo bëggoon def bii jiimun bi xaaw nooy ko def tom bi ngay dindi ngay dindi ah. ah. mu nekk xaaw de maanaam bii xaawoon la bii jiimun boo bëggoon def bii bii nooy def tom bi rek ngay dindi léegi nag léegi xaawun bi boo ko bëggoon def jiimu nooy def. ci kaw am ci suuf. ci suuf ci suuf gis nga. léegi nag bi lan la. xaawun léegi xaawun bi soo ko bëggoon def xaawun bi nooy def. nga dindi tomb bi. léegi nag xa xaawun bi boo ko ko def jiimu nooy def. tomb bi ngay def ci suuf. léegi nag xaawun bi boo ko ko def jiimu nooy def. waaw tomb bi ngay def suuf tomb bi ngay def suuf ah sama gars yi yéen ngi bëgg a yeewu de gis nga kon nag lii nii nii nag mooy tax nga mën a ràññee léegi boo ñëwee fii léegi bii eh, len la lii nag bii bii léegi nag dama ne ne baawum bii soo ko bëggoon def taawum nooy def ci suuf ci kaw ci kaw waaw ci kaw mu nekk taawum léegi taawum bi ba ko bëggoon def baawum nooy def waaw ñaari tomb yi la def tomb bi ci suuf ci suuf muy baawun léegi nag taawun bii boo ko bëggoon a def taawun ñooy def da ngay dindi tomb bi ci kaw waaw mu mu nekk ñaar yi léegi léegi taawun bi boo ko bëggoon a def taawun nooy def def tomb ci kaw ci kaw mu muy nekk ñetti tomb gis nga mu ngoog loolu loolu njàng nag noonu koy ràññee léegi nag damaa bëggoon léegi nag bii nga xam ne mooy faun ndax am na fii waaw li dale fii ba fii ndax saa un bii am na fi. am na fi. fan ak fan. ñeenti yoon. ñeent yoon. ñeenti yoon am. ñeenti yoon ban ak ban. muy benn. waaw. waaw. daal li ko wute nag bii nag. mooy bii bañ yee tax. kon bii moo bii la nuróol. bii am ñetti tomb di nga jàngat beneen yoon booy jàngat beneen bind bi ñëwaat. waaye kon ñett yoon ndax boo xoolee bii benn bañ la am gis nga mii gis nga nii moo tax bii saawum bi amul ñetti bañ yii kon léegi ñetti yoon la ci ñëw gis nga ni ni ni ni muy ni muy ràññee gis nga li ñuy bind nii day dem ba mujj dangay ngay jàngat xaraf yépp soo ñëwee léegi xarafu daal bii xam nga ñëw waxoon ngeen ma bi may tàmbali ñëwoon na fii ñëwoon na fii waaye nag ndax za bii am na fi amu fi amu fi léegi nag ñaar yii soo ko bëggoon a def saa bi nooy def. da ngay tomb ci kaw gis nga pour mu nekk saa faaw mu tomb ko ci kaw léegi eh, raa bi moom laajoon naa leen zeyin bi laajoon naa leen ko léegi siim bii siim bi ndax ñëw fii siim bi ñëwul fii ah ok non fan la. bii. waaw bii. bii. ñaareelu xaraf bi. <laughs> waaw ñaareelu xaraf bi waaw mu ngoog. <laughs> waaw kon jeex na siin baa ngi nii. gis nga nag loolu mooy tax ngeen xàmmee ko. léegi nag kon léegi dafa mel ni xaraf yi moom yéen a ngi koy bëgg a miin. léegi xaa bii soo ko bëggoon def xaa bii nooy def. tomb ci kaw da ngay tomb ci kaw. Ah. gis nga mooy bii ba tey da ngay tomb ci kaw waaye boo ko bëggee bàyyi mën nga bàyyi ko noonu. dafa mel ni kon dafa mel ni boo ko xoolee xaraf yii nga jàng kon yëpp e benn rek booy seet moo ci amagul ci fii yëpp mooy za zabi za bi ak ñaar sax lay doon ak bii ak zeyin bi mooy za ak zeyin bi moom amul fii yëpp waaye bu dul ñaar yi rek soo ko xoolee di nga ko mën a fekk fii xanaa biñ ciy wax mooy xaa bi te xam nga wax naa li ko wuute rek moom mooy tom bi léegi bii nag jiim bii ndax am na fii di dale fii ba fii ndax jiim bii am na fi jiim bii am na fi fan la fii bii la ban la bii léegi nag bii bii boo bëggoon a def jiim nooy def da ngay tomb suuf léegi jiim bi boo bëggoon a def xaa nooy def da ngay dindi tomb bi gis nga soo gis nga boo dindee tomb gisatoo tomb bi léegi mok bi ñoo yem waaw waaw léegi fii ne bii boo ko boo rek muy bi léegi loo noonu rek nga koy ràññee léegi nga xaraf loolu rek lay jëriñ non nga koy ràññee kon boo xoolee za ra zeyin siin za ra zeyin siin gis nga lu yom a wax la gis nga boo fekkee nii ma ko jàngi nii da nga koo delluwaat ginnaaw jàngat ko comme ni ma la ko jàngi nii day yaa gën a yomb ci yow comme xam nga dama wax alifun baa un nangam loolu day yeex nga ni alif gis nga baa taa saa jiim xaa xaa daal gis nga ni mu neexee za ra zayin siin nga day neex lool boo koy wax day day yomb day ci lay gën a gaaw te ci lay gën a yombe ci yow mais li ci am solo mooy nga xam ne xaraf alif gis nga bokkul ak alifun baa un taa un saa un jiimun xaa un xaawun daalu gis nga yooyu day day yeex dana neex nag waaye bi mooy gën a yomb alif gis nga ba ta sa jim wala jiim xaa xaa daal ki nga boo koy waxee sax noonu ci gën a am maxaarijul xorof bi ndax ci lay gën a yomb ci yow nga wax ko xam nga xaaun ak xaa xaa day gën a neex a wax jiimun ak jiim gis nga day gën a neex a wax xaa gis nga xaaun ak xaa xaa bi day gën a yomb daalu ak daal gis nga daal bi day gën a neex moo tax kon alif ba ta fa jiim wala jiim xaa xaa daal daa gis nga daa da ngeen leen koy daal daa gis nga daa ra zeyin siin siin siin gis nga léegi gis nga zeyin boo ko bëggee faat na sam xel dem ci siin kon nag léegi ah damay ñëw nag ngeen baamul ma nag léegi léegi nag ma bëgg du ma yem ci bindu tey bi de ndax bindu tey boo ci yemee mën ngaa fàtte léeg tey nag dafa mel ne ñetti ñetti yëpp ñetti bind yëpp ngeen jàng tey ma bëgg ngeen tàmbale ma ko fii ba fii baamul ma ko ñetti yoon waaye dinaa leen dimbalee man wax ko benn yoon bàyyi leen ngeen wax ko alif alif ba ta

xam nga mënoon naa tàmbali fii ngeen wax ko waaye ñàkk gee tàmbali fii tàmbali fii ngeen wax ko ba ñëw fii te fàttu leen ko mooy wan ni mokkal ngeen bindi bi kon nag nii rek mooy njàng mi nii leen koy defee xanaa su leen laajee benn par ben nag ma seet ba xam ndax liñ dese bareetul ndax ñu wàcc léegi bii lu mu doon bii lu mu doon bii lu mu